tey jii ñu ngi ci marché centrale bu cees toog ak kuñ naan Aly Ndiaye nekk président filière oño ñu bàyyi ko mu nuyoo. Aly nuyu nañ la. waaw soxna si maa ngi lay fay. Aly for nañ ci webu béy ne démb autorités yi dañoo ñëwoon fii seen place bi bëgg leen fee yëkkati ñu doon laaj lan moo waral loolu ak nangeen ko dundee. dama ko foreew lu wér la nag nekkul lu ñuy for maanaam autorités yi nga xam se ñoo nekk fii ci Thiès ñu koy wax préfet ak maire zone nord Lamine Diallo. ñoom ñoo lëkkaloo ak benn entrepreneur daal di fii dañ ñu fi jëlee ci jëlee googu nag li ñu njëkk annoncé ñoom mooy euh, fii ñu nekk nii nga di TF 143 nga xamante ne liquidateur de semaine d'affaires moom moo nu ko jox mooy Diamsa Diagne la ñu wax ni léegi dem nañ ba tey ñu ni am na famille bu ñuy wax famille Ana Faye ñoom ñoo ko moom léegi ñu dem wuti seen entrepreneur ñoom ci ñoom préfet préfet bi fi nekkoon mooy bu foo defal ak Lamine Diallo. ba ñu indee ñu toog gisuñu benn promoteur ñoom dañ ko wax rek seeni wax la ñuy wax ba tey ñu ne léegi ñooñu ñoo xam décision bi jógee na tribunal léegi da ngeen fiy jógee moom bi mu fi nekk dañuy avant la quinze parce que moom da nga waroon a dem après la 15 bi la fa jógee moom mu ne avant la 15 incha allah rek bëgg na lépp jeex ba ngeen jógee fi wala moo dem na ko def ah bi ñu waxee loolu waxtaan bi mu ñu wax loolu ci lañ ko mujj gisee ba mu dem dem ba dem ba ki ñëwaat. Euh, préfet bii fi nekk nga xam moo ko remplacé alxames bi ajuma yi passé toog nañ waxtaan juróom bi mu toogee moom mu ne dafay fekk aw kayit wuñ bind daf koy exécuté ma ne ko d' accord sañ nga ko waaye nag yaakaar naa ne binduñu rek teg fi ni da koy def dañ la fi teg comme nga représenté askanu Sénégal mais rawatina Thiès te bu amee problème dañ leen war a woo waxtaan ak ñoom nga xam ne du am benn problème nga calmer yëpp. Hmm. doguma la sax Ali dégg naa sa biir wax nga wax waxu kayit ma doon laaj ndax fii ngeen toog yéen bi leen koy jox jox nañ leen ko ci ay kayit yu leer comme que dañ naan tubaab kayit la xam. waaw non xam nga fii moom am na fi ñoo xam am nañ contrat contrat moom kayit dara mënu koo gën leer ñeneen ñi ci des dañuy fay li nga xam seen mooy taxe municipale yi taxe municipale nag moom fépp foo occupé da koy fay kooku moom moo xam lu mu mën a doon. marché mënul am lu passé contrat. musul am lu passé taxi municipal la ngay fay impôt loolu donc mom mo am ci marché ñi nga xamni ñom ñom mom site bi muy wa semaine de fer ñom ñono ko jox ñu tok fi di liggéey ñu tok fi di liggéey ba jëmmi jamono tay ñu ne dañ fi jógee te jógee gi amul dara lu leer ndax bu fekkente ne ñoom wax fami Ana fay ko mom fami Ana fay bobu ñom dossier bi ma ngi justice pareegul dañuy atté première atté bi lañ def té luñu def ci dossier moy atté par défaut moy manam dila wax ni ki nga xamné ne moom ko sékkal téwul ci lolu ñom dañu def appel appel bi war nañu def jugement bi le 6 février 2020 muy fan yi jox alxames la defe am ci digënté bobu nak lañuy profito ni dañ fi joggé ba dembu ma jot ay écho ñu ni Moustapha Ndiaye di promoteur bi dem na marché mo santé di fa recruter ay nit pour ñu ñëw ci biir marché pour jël bagage nit ñi bi ma ko yëgee man tam ma leeralu ko. woo fu kenn mu wax ma ne ma effectivement ñëw na fi te gis naa ko te ci man la jaar ah bi ñu waxee loolu ma ne comme demee na noonu ñu nit baax na ñoo leen déglu ah ci biir déglu gi tamit teewul li ñu yoon sant nga xam se ne moom mooy bu leen di attaqué da nga am juridique boo xam war nga koo ak moom bu wax ko fi nga nekk ak lan nga jël décision bu def ko moom la ñu dem wax ko suñuy mbir mbébétu ko moom it mu calmé ñu xamal ne carrément ni sañu faa dugg yàq seen bagage te décision justice génnagul ndax ki fi représenté l' état justice lay déglu ak même ku sax décision tribunal moo bu dool décision yëpp décision bi génnewul mënul exécuter dara te ci yoon bu décision bi génnee ci huissier a war dem su jógee ci huissier huissier bi moom mooy ñëw fii fekk responsable bi nga xam seen moom mu occupé fii mu jox ko kayit ni ko ah, kii gët bu daan na leen léegi neen da ngeen fi jógee ngeen wuti feneen parce que suuf si jàmbur la su boobaa soit borom day jaay wala jaay loolu médiateur boobu ñun entre ñun ak kin koy defal lay doon moom mooy dem sisir police moom mooy ñëw indi ay agent bu demee ba dëgër boobu am ci te yaakaar naa ne bu boobaa du ci am ndax alalu kenn du xëccoo waaye ci li ma dé li ma li ma gis ci Sénégal gi ak rawatina Thiès gi mooy ñi fi nekk ay intérêt personnel la ñuy dox mooy maire lamin jallo

Euh, ci loolu man maa taal sama génn dem miiru gouvernance fekk fa oto Moustapha Ndiaye di promoteur bi bi ma ko fee fekkee ma ñëw fii ni gars yi kat ñu nga fële taxaw ak seen i nervi bi ñoom dañu recruter booy yéen recruter maa ngi xam nañ ma xam naa leen parce que bi ma leen robinet kii Aliou Ndiaye la ma leen man la bi ma tourné waatee fekk mu fekk naa ñu dem ñibbi. ma yaakaar ne bu fekkentoon ne sax yoon deug rek la promoteur amugul ben droit bu ñu duggee ci suuf so xamante ñaari parti ñom ñokay xëccio ñaar ñoñu ñom bu déme ba kenn gañe nak ya xam loy def yaay wuri sa promoteur bop ba tay ñun promoteur amutoog mom affaire ci kaw ñom ñu jox ko ndigal ni kat waxtaan ak ñafa nek pour defar nga défar nan nga koy défaré loolu mën nañ cee waxtaan mais suuf ci di ngeen jog du ngeen jog promoteur amugul ci wàll ah nun nak defuñu kenn dara sagawuñu tooñu ñu kenn ñoo ngi toog di liggéey suñu liggéey bu fekkente dem na ba yoon joxe dëgg suñ ñëwee ni carrément yoon joxe na dëgg tan gis dëgg la ñun boobaa moom amatuñ fi lu ñu fi def alalu jàmbur joxe lañ ci xam mais ci jamono yi ñu nekk moom ñoom li ñu def mbirum am doole lañ koy doxalee.